asalaamaaleykum donc jullit yi mbokk taalibe yi ñun étudiant ndigal yi nga xam ne ay taalibe yi ndigal lañ fii ci université bi joxoon ñu ñu góorgóorlu bu baax ci teggin ak taalibe yi comme màggal gi jot na nag ñu ne bala ñuy def dara dañuy ñëw ci moom mi nga xam ne mooy suñu kilifa ci tàmbali gi nga xam ne ñu ngi koy tàmbali suñu télé bu bees bii di ndigal TV bu ko na ñëw sàkk ci moom ay ñaan ba pare mu wax nu wàcc wàccuwaayu màggal gi nga xam mooy màggal gu mag yi. waaw ñun nii rek lañ ko bëggee. waaw bu subaa. waaw tàmbali ma tëjal lépp. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala xanaa di siyaar tey ñaan. ak wér te yéeneem ci yoon wi yàlla yeggale ko. te weesu ko. te yàgg ci sunu kanam lool. te ñu ànd ci liggéey bi. di ànd ak moom ak moom. ak bi yëpp. yàlla yàggal ko fi télé bi moom télé bi ndigal moom wax dëgg yàlla ak sant yàlla la ndax lu luñ ca man di gis tamit lu nu mën a yokk rek lay doon ndax sëriñ bi moom tegul yoonam ci ci tànkam ci yoonu siraatal mustaqim loo xam ne day jariñe rek du ñu wax lu ñu jariñ moo waaye du lu wax loo xam ne jariñam la moom la waaye ñun lu ñuy jariñ rek ndax saa bu ne mi ñuy woo di ñu gën a waxtaanal ci sëñ bi di ñu gën a wan yoon wi dina ko teg. yàlla sëñ sëñ bi moom doy na ci. waaw moom alhamdulilah moom moom noo sant yàlla ba nu yàlla booleeg moom bu baax a baax di sant te yàlla na doon njariñ jariñu biir ak biti jërëjëf maaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh kon maanaam li ma ciy dugge mooy sëñ bi moom lii ci sëñ Moussa Ndoye wax loolu rek moo ci ne mënu ma caa wax lu ndax xam naa ni daal yoonu murit ndigal moo fiy doxee boo gisee Cheikh Fall naan kenn mënta jëriñ sëñ Tuubaa te ubbi ma la mooy ku defut ni moom lu waay di def fekk nga mu gën la ko def dàq la ko def taxaw ci bunt ba nga di ko ca roy moo tax Cheikh Rafal mooy baabul muridiina loolu ñëpp xam na ne sëñ Tuubaa nangul na ko ko ñi sëñ Tuubaa àndaloon di ko ko sëñ Cheikh Ndigal ba mu jógee ba nëgëri ku na ne yoonu sëñ Tuubaa Cheikh Rafal bi yëpp yokk na ko loolu moom mën naa ko waat moom mën naa caa garanti sama bakkan itam loolu mën naa ko waat yàlla ak dara man ko waat dara jee borom Tuubaa kon sëñ moom lii mu digle yal na nu yàlla boole dugal nu ci biir ndigalam nu bokk ci ñey ànd ak moom nangul ko te di ko doxe ci dajee borom toog Sëriñ Fall jërëjëf Moussa Ndoye jërëjëf sant nañ leen bu baax yàggaay ñi fi nekk ñëpp sant nañ leen na ngeen góorgóorlu raw sëñ bi lu ngeen man ak lu ngeen mënul waaw man mii tam daa ma mi mel ne dama ci génn a bopp waaye nag li ma jox kàddu gee tax waaye wóor na yàlla yont bi yàlla mi nga xam ni moom dara ump ko xam ne sëñ bi bi ma yàlla booleeg moom ba nëgëri sama mbir mépp gën naa dox wóor na kon yi dugun ko nag moom bu ne ngeen faatu naa bu yàgg ndax xam naa lu taxoon indi ma saam bu ma fa toogee xam naa ne jàmm damay gudd fan loolu moom mën naa ko waat moom ndax sëñ ta faala koo xam ne fii laa bëgg nga toog fi fépp ba baax waaye nag yow fii laa la dëën kon nag loolee ma wax na ne maa nga ca kon sëñ bi la ma boolee loon ndax musuma wax ana sëñ waa ji la ma daan wax barke borom trois sëñ sa wax bi dama ne ana sa waa yow loo xam ci moom nanga ma ki nanga mën naa ko waat jërëjëf kon sant naa bu baax waaw jërëjëf ngeen boole kaddu yu rafet muy bis bi bi doon wax ni sababu xaybati ana laaha araada an anaala min fu jaaxa nee na bi may yóbbu ci tukki bi dafa bëggoon ma am daraja mooy bis bi nga xam ne mooy moom lañuy wax tey di weeru safar mm-hmm. كلا دون وخي إني خرجت يوم السبت الثامن عشر لخدمة المختار في شهر سبع مني دما جوغي بسوب غاو di fukki fan ak juróom ñett di màggaluk Touba gi ñuy def tey ngir liggéeyal yonante bi ci fukki fan yeeg juróom ñett loola moo waral bis bi ñëpp daje fi xam ni an anaa la jaa jooju mu waxoon ni ngir ma am daraja taxoon ma koy def daraja ji defe naa ni àddina sëpp yëg nañ bis bi bu yegsee daraja yi sëñ Tuubaa day yokkuwaat mu tegaat ci ni wa an akuna saafi an li xaw mi dafa bëgg ma ràmm sama nit la ca tegu wa an akuna xaadiman fi daw mi la ma doon ñaan bëgg a bokk ci saaba yi yonante ma doon surgaam di koy liggéeyal ci daw loolu dafay doon loo xam ni yu bari daje ci bis bi tey yoo xam ne mënuñ su koo jeexal ci jamono temps yi nga xam ne moom ngeen fii kii waaye nag euh, li ëpp solo mooy li ngeen def. gone guy jéem a koo xam lu baax. te di roy. dañoo wax ne ñaar rek am roy ak romb. bul ni nit damaa njëkk ci mbir mi ba tax mënatuma koo jot dañ ne roy romb. ndax Cheikh Ibrahima ñuy waxe ci saayir moo fi jiitu sax waaye saayir si moom jiitu fii nañ koy gisee. waaye jiitu gi moom mën naa waat ci yàlla ni moo ñu fi jiitu. ndax ñaar rek fi nekk. zaahir ak baatin ah. waaye ku dem ci baatin hmm. da nga xam ni moo fi jiitu hmm. ndax ki nga xam ni ay at la nekk hmm. di tëggu di wër di jooy di xas di gis di wër ki muy ki mu ki mu ki ñuy tudd ba bu demee ci garab sax di séen ci jaww ji ñu bind Ahmadou Bamba mu daanu defe ne da ko daal di gis kooko defe naa ni am na cër bi nga xam ni rafet na te mat na ko ci niñ koy wooye maa ngi dégg ku baax keroog ñu koy introsé ne ko waaw damaa gis Seex ba ak ku mel ni sëñ Mbàkke bi su sëñ Tuubaa boole waaw lu war a loolu sëñ ba daal di wax ca lu rafet wax la sëñ bëri Basiir waxoon ba fi dafa wax ni ay kenn yo ñoo ma wër mm-hmm. arjaauha bi jawaaril aylamil alam mm-hmm. maanaam mbaar mi mënta am mukk ab dal te amul ay keno wala ay jën yoo xam ne nii ñoo ko téye mu ni ñooñu noonu lañ demee du caa gi ni bër euh, jën woo gis nag mbar mbagg la mbar mbagg moom wasinu moo ko xam mooy <laughs> jën woo xam ne ni dañ koo <laughs> euh, dañ koo yett ba mu set da nga gis mu yenu ah. moroom yenu te wee duñ ko xas beneen bi ay duggeen bokkuñ ñii dañuy jaar ci yoon ñii dañuy tëb ñii dañuy wut loolu mooy bunt yi nga xam ni. moom la ñu wutee. beneen bi ci tegu. ñu laajaat ko mu ni Cheikh Ibrahima Sëñ Tuubaa de nee na. xëy na defaluma lu ma kenn defalul. waaye damaa xajul kenn ci xolam. kon loola moom bokk na ci lim leen rawe ba tax na dem fii ma jóge itam di gànnaar. ma foraat fi benn histoire. ma dem ba Charchara. ma gis àll ba nga xam ni moo fa nekk. ñu tegoon fa sëñ Touba. ma gis Cheikh Ibra dem ba gis fañ ko teg. mu ni mu xam ni. fii de kuñ fi teg sa mbokk. lu dul pexe jële ko fi du du am njariñ mu dellu ndar. di liggéey di mu daaranteeg tubaab bi. ba am autorisation jëlee ko fa. ma ne leen loola mooy liggéey ba. te da caa tegu. ba mu ko fay jëlee. tubaab bi da ko ne bu dawee yow laay jàpp. Ah. mu ne ko nangu naa. waye nak samay nang gi damay nangu samay wa samay samang jabot mo ñokoy gar ndax bab man na def la bour siin doon def ci daaru mànnaan ba tax euh, ba mbaaxaan naree fexe ñu dem ci kër ga dafa wut téeméeri nit ma ngi leen tagaté dëkk bo xamni ni wutaloon nañ fa kër sàngaay ah. sangay ma nga ca wutu Fatick ah. fofu la tàggate téeméer ñi nga xam ne ñoo doon garde si këru daaru marnaan bañ ay ceddo jiitu fi dugal fi la ñuy jiiñ sëñ bi moo tax buur siin ab liggéeyam foofu dafa rëy ca la wute téeméer ñoo xam ne ca ma lañ ma wax ci histoire xëy nañ di leen fetal ba jant su bal dalu leen mu ni leen nag dem leen jiitu ci kër ga bala cee ñi ko doon jiiñtuma dugal fa loo xam ne nii bokkul ak loolu ndax sabab ba la koy indi mooy liggéeyub Cheikh Ibrahima Fall mu daaru mbanaan yi ngeen di dégg lépp liggéeyub Cheikh Ibrahima Fall la ko waral mooy ba nga xamee ni sëñ Touba dafa jóge géej ñëw Daaru Salaam gane maam maam Seexanta dem yeble ni nañ ma sancal daaru mannaan ba tàmbalee di sanc ba kër gay defaru mm-hmm. Seex Ibra wut ay lal mm-hmm. lali wurus mm-hmm. suturaal ko def ko ci ay saaku teg ko ci giléem di ko indi mu romb nag benn ardo bu ñuy wax dem ma ngari mu daal di ni loolu ñuy wax aw raj mooy agent secret hmm. mu daal di ah keekat Cheikh Ibrahima Fall mais li mu yor kat ay fetal la hmm. Hmm. daal di koy jekk-jekkloo ñu ne kon nag day wax waaj a xeex yu lii mooy sababu daaru daaru daaru manaan bi nga xamee ne looloo nag jàll na te lañ jël siwaat sëñ bi exiliwaat ko yóbbu ko nag gànnaar boole kook Cheikh Sidiya Sarsara loolu mu ngi nekkoon 1903 mu nekk fa 1900 euh, 1902 1902. déedéet 1902 la ba 3. mu jóge fa nag dem ci yéen ba waaw ba 7. léegi nag 7 boobu mu jóge fa dem euh, Thièyène. ba mu demee Thièyène la fa nekk bu 1912. waaw jóge fa doog a ñëw Njaareem nag nekk fa fukki at ak juróom. Ah. ba mu fa amee ñetti at. Ah. la fa Seex Ibra ñëw. Ah. mooy lañ fa rawante. ma ne benn dëkk mooy njaareem bi nga xam ne fukki at ak juróom ñoom ñaar seen ruuya fa la des fa lañ ko nooyee ci àdduna li ko weesu doxal doxal joo xamul ak rek foofu lañ newoon kon njaareem am na cër loolu moo tax léeg-léeg may wax gone njaareem yi sax bu leen neexee dañ ma ne leen dañ leen di nax sëñ baa ngi njaareem mm-hmm. ci kaw waxtaan rek laa leen koy tooñe mhm. ndax man leen sëñ déggu leen sëñ Modou Moussa demuloon ba ñuy deñ sëñ bi mhm. ndax dem leen dañoo nëbb nit rek ñu leen yóbbu nañ ko Touba kon bu leen mer jël téye leen jaareem yéen itam dama koy soññ jaareem waa jaareem <laughs> nii bokk na ci li réyal bis bi nga xam ni moo am nii tey ma di leen ñaanal suñu borom defal leen ndam defal nu ndam damay wax ni yaakaar sëñ Touba yàlla bu mu tas keroog ba ma taxawee Makka di def umra ba ma <coughs> ba ma wéerul ci màqaama Ibrahima man naa waat ci yàlla na ma ñaanal ni sëñ Touba liñ ko yaakaare yàlla bu mu tas ndax murit yëpp daje ci yaakaar ko rek ci defaru tey kon <coughs> moom itam da doy wax ni Euh, ñàkk euh, ñàkk ñaanal ku baax bokk na ci cat kon nañ koy ñaanal moom itam suñ borom defal ko yërmande ëllëg ak ju tey ba yaakaar ci moom ci texek àdduna bu àllaaxira ak cër ba mu sàkk woon bokk ci saabata yu rasul ya loolu muy wax ayaa xaadiman muxtaari laa tan sa saaba fa man yan sa um fal matu matum mu xatta um